Et ce que j'ai retenu, et je n'ai pas de raison d'en douter, c'est que ce qui l'intéresse, c'est comment voir les meilleurs profils à l'intérieur du comité exécutif, les profils africains bien entendu, et à l'intérieur du conseil de la FIFA, pour que l'action que la FIFA est en train de mener pour le développement du football africain puisse se bonifier. Donc euh, moi, je m'en tiens à cela. Je pense qu'aujourd'hui, il faut considérer que la FIFA intervienne euh, au niveau de la CAF ou aux côté de la CAF est tout à fait normal. Pour le reste, c'est nous, par rapport à notre management, par rapport à notre leadership, à pouvoir établir des relations équilibrées, mais de confiance. Président, yow noo jàngatee programme bi nga xamante ne tey fii ci Praia Maître Senghor biral na ko euh, public bi. waaw sant naa yàlla trop parce que euh, yaakaar bu am ci président Senghor. li tax ma dooleel ko bokk ñi xam ne ñoo ko mm, ñoo ko taxawal wone la lu ëpp loolu tey parce que document bu mu présenté te nu mu ko manière nu mu ko présenté boobu daal xam naa ne yaakaar naa ne du may ruus parce que xam naa am na compétence am na vision bi pour liggéey liggéey bi pour defar ko Afrique defar ko CAF. en dehors de ça comme ñun Gambie Sénégal yëpp benn la euh, Senghor nekk président ma nekk président euh, waaye loolu tam sama mbokk balaa nga koo farle euh, nga am nga xam ne ci dëgg nga ko farle loolu loolu motivation bi liggéey naa moom liggéey am na juróom-benni at boo xam ne ma nekk président fekk ko ci suñu diggante bi ratax na trop te kon nu ma ko waxee waa compétence bi moom ak expérience bi Eh, ak déggu bi ak passion bi mu am si football ah, loolu tam mu ma gën a ñënoon a ñemeeloo pour taxawal ko. nga yaakaar ko ne d'ici